yeesu juddoo na ci benn juddu bu amul benn sikki benn malaaka moo ñëwoon ci benn jànq bu ñu wax maryaama te mu nekkoon janq bu ñu doon ngoro te seyaguloon te ku ko doon ngoro mu ngi tudd woon joseph maanaam usufa usufa moomu moo nekkoon ki ko doon ñaan pour jabar waaye ci aada yaawut yi melul ni suñu aada léegi ndax ñoom dañu doon maandu ba ci sëy ñu door a sëy noonu la nekkoon diggante yosef yusufa ak maryaama bi malaaka bi ñëwee nag feeñu maryaama te di ko ne maryaama bul tiit bul ragal yàlla tànn na la ci yiwa dinga omb doom bu góor te nanga ko tuddee yeesu noonu nag maryaama daldi ne ah loolu nu ma mën a amee te man sëyaguma juddu na ci façon bu yéeme benn malaaka moo demoon ci benn janq bu ñu wax maryaama te mu nekkoon janq sëyaguloon mu ngi doon ngoro ak ku ñu wax yusufa malaaka bi daldi ko xamal ne dinga omb ci kattanu yàlla te doom boobu dina doon ku mag ci kaw nit ñi te dinañ ko woowee sax doomu yàlla maanaam baatu yàlla noonu maryaama daldi jaaxle lool wante malaaka bi nee ko maryaama bul jaaxle yàlla ci boppam ci yàlla lay jóge malaaka bi daldi ne doom boobu nanga ko tuddee yéesu maanaam musalkat bi dina doon nit ku mag te képp ko gëm ci moom yàlla musal malaaka bi daldi dem ci yusufa mi doon ngorowo ak maryaama daldi ko ne yusufa bul ragal dara yëgalil maryaama mu doon sa jabar ndax omb bi mu omb ci yàlla la jóge yusufa nag nit ku jub la woon te bëgguloon dara rusloo maryaama bu mu déggee kàddu malaaka bi mu daldi def li ko yàlla waxoon